kinaara ma nga ne ci biir ba léegi. moo oto bi gis nga eh au lieu parce que. ba léegi ñëwagul. Thank you.

allo allo non dugal ko dugal ko sa poche non Dites-nous le bilan de cet accident et présentez-vous d'abord. Ok, compagnie de la 23e compagnie d'incendie et secours, Donc on nous a appelé pour euh, un accident sur la RN3, hauteur euh, d'Aro Maintenant, arrivé sur les lieux, il s'agissait de euh, collision entre un camion qui est qui s'est stationné et un véhicule particulier. Donc de Golf, marque Golf. Bon, le bilan, malheureusement, le bilan euh, s'est alourdi. Bon, il y a huit euh, victimes, dont quatre blessés graves et quatre consommables. ci wolof la ñu mën a leen war a waaw man maay lieutenant Ousmane Lo maa ngi jóge jógee sa pompier bu Touba léegi ci tënk bi benn oto particulier moo ñëw mbëkk benn camion bu stationné ci kaw tali bi dafa paanoon léegi malheureusement muy occasionné huit victimes huit victimes yi mooy dafa am quatre yu grave ak quatre corps sans vie. Euh, bonjour monsieur monsieur Ousmane Ndour je suis l'ICP de Dalangabou de la zone où s'est l'accident vraiment nu déplorons cette situation. Au fait, ça ne fait même pas un bout de temps. Les gens du, du, de la localité faisaient des, des, des, des, réclamations pour avoir une ambulance. Je suis venu sur le lieu, mais je suis venu avec ma moto. Je ne peux pas évacuer sans ambulance. Il y a eu quatre décès sur le coup. Au fait, on ne peut pas évacuer. On a les, les ambulances, les collègues d'Arnaïm et, et de Taïba pour qu'ils viennent euh, amener, euh, pour, pour qu'ils ramener les corps mais au fait si on avait une ambulance on aurait dû soit évacuer certaines certaines choses mhm. vraiment nous déplorons cette chose là merci. Euh, Ousmane Ndour infirmier chef mhm. vraiment au fait fii waaw ñàkkum ambulance bi nekkoon na gàllankoor si ñun ndax temps yi rek gars yi génnoon nañ di kaas pour ñu am ambulance amoon nañu ambulance mais c'était en panne man dama ñëw si accident bi moto laa indi. moto moo mënut évacuer mais am na fi quatre corps yoo xam ne peut-être ak ay blessés yoo xam ne woo nañ <coughs> hôpital Mbacke ñoom ñu évacuer ak suñ collègues yi xam ne ñoo nekk Daaru Nayim ak euh, Taïba ñoom tamit jàpp si affaire bi yóbbu corps yi ak euh, euh, bu ñu amoon ambulance ak bi ñu nekk nii danañ mën a soit urgence xam ne am na rek danañ ko mën a lever boog kon defee mën na doon une ambulance ñu mun di jóg à di évacuer ak tamit ay ralentisseur tamit fii bu amoon dina baax ay doodaan bu amoon dina baax waaw jërëjëf waaw